واشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة وفاضل الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله عنوان لقاءنا في هذا اليوم الميمون المبارك هو انتبه انت في شهر صعبان mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu ñu tàmbalee ci turu borom bi ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi sunu xutba tey mooy انتبه أنت في شهر شعبان yow sama mbokk jullit taxawal bu baax déglu xam ne yaa ngi ci weer wu tudd Shaaban weer woowu ñu naan weeru baraxlu xamal ne ci nga nekk fa inna allaha jaala مرور الأوقات تذكرة للعباد المؤمنين في كل وقت من الأوقات عبودية لله تعالى sunu borom subhanahu wa taala mooy ki def mooy ki sàkk ki bind waxtu yi romb gi ñuy romb paase gi ñuy paase di delsiwaat mu nekk luy fàttali jaam yi gëm yàlla ci waxtu wu nekk ci ay waxtoom jaam yi war a fàttaliku ci waxtu yooyu di ñëw di dem jaamu yàlla subhanahu wa taala ndeke waxtu yu ñuy gis muy passé di romb di ñëwaat lan moo tax borom bi sàkk ko pour mu nekk tazkira lil ibaad luy fàttali jaam ñi su la bi rëccee tey su ñëwaatee mu bañ laa rëcc su la àjjuma rëccee ak xéewal yi ci nekk xëy na ñu fàttali la ko ci yeneen waxtu yi su ñëwaatee mu bañ laa rëcc su la saabaan rëccee ñu fàttali la bu saabaan ñëwatee nga bàyyi ci xel bu la weeru koor rëccatee ñu fàttali la bu weeru koor ñëwee nga taxaw su la laylatul qadr rëccee ñu fàttali la su laylatul qadr ñëwetee nga taxaw moo tax mu ne inta bi defal attention déglul bu baax te dégg yëg ne yaa ngi ci saabaan mbokk yi wa min saadati alabd an yaarifa sharafa alzamani wa qimati alwaqt bokk na ci li tax jaamu yàlla di texe mu xam ngëneel yi nekk ci jamono ji ak waxtu yi mu xam importance waxtu tey su ngeen gisee réew mi alku nit ñi sànku mooy xamuñu waxtu wi li ëpp ci sénégalais yi seen waxtu dañ koy fowee dañ koy caaxaane te xoolal waxtu ni mu amee importance ba yàlla waat ci mu ne walla as maa ngi giñ ci jamono ji lu tol noonu yàlla di ci giñ nit ñi di ko fowee te ku sànq say waxtu rek mooy sa dund sànku na loolu moo tax ngeen gis yowmal qiyaam bu jotee ba ñu yee ci ñi ci bàmmeel yi ñi faatu ñu fëgg seen bàmmeel ne leen jóg leen bu ñu dekkee xam nga lu ñuy wax bu ñu leen laajee waaye ñaata fan ngeen def ci bàmmeel yi dañ naan lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha parce que dañ doon fo dañ doon sànq seen waxtu ñami ña in labisna illa yawman ñun de benn bis lañ juddu àdduna rek daal dee déedéet def nga fi juróom-ñaar fukki at waaye da nga ko nekkoon ci làmb yi da nga ko nekkoon ci da ngaa nekkoon ci da ngaa nekkoon sa dund di dem ba nga màggat te yëgoo ko ba dee ñëw këf la loolu moo tax bi la dee bettee nga am problème bi fi mu nekk ni loolu rek mooy suñu wax mooy suñu problème waxtu yëpp dañ koy fowee waxtu yëpp ay caaxaan la koo fekkul mu toog di naan ataaya mu ngi toog di waxtaan kee ngi ci télé bi kee ngi ci làmb ji kee nga mu nga kee ma nga ku nekk ak fi la yàlla nattoo te wa min saadati al abd dafa bokk ci liy texeloo ab jullit an yaarifa sarafa zaman mu xam importance su jamono ji mu xam waxtu yi moo tax jullit su rombee bàmmeel yi mu ne laa ilaha illa allah néew yi dañ naan ko da ngay wax rek baat boobu xamoo lu muy jëriñ lu dul nga ñëw fii fekk sanu fi da ngay fo rek bis boo ñëwee fii fekk suñu ci ngay xam baatu njëriñ baat bi ngay wax xamuñu ko sunu waxtu yëpp dañ ko foo dañ ko sànq doomu aadama war na xam qiimatul waqt importance waxtu wi an yaarifa wazaifa al awqat hatta yaamuraha bi taatillah war naa xam importance waxtu wi su xamee importance waxtu wi lan la koy jural mooy mu dundal ko ci jaamu yàlla tabaraka wa taala xam ngeen ne ñu njëkk ña waxtu yi ñu amoon dund yi ñu amoon moo ëpp téeméeri yoon yonente alayhi salaatu wasalaam dafa toog ak sahaaba yi di waxtaan ak ñoom ñu njëkk ña at yi ñu amoon xoola nuux alfu sanatin illa xamsina aman aadama alayhi salaam rek bi mu wàccee kaw suuf makasa salaasa mia sana lam yarfa ra'sahu ila sama aadama rek bi mu wàccee asamaan jóge asamaan ñëw suuf waxuma loolu la am de dama ne toog na ñetti téeméeri at xoolul kaw asamaan ndax benn bàkkaar boobu mu def ndax rus yàlla benn bàkkaar boobu mu def ñetti téeméeri at def na ko ci kaw suuf siggiwul xool kaw asamaan ndax rus yàlla benn bàkkaar boobu yàlla waxoon ko bul jege garab gi aadama dem lekk ci kooku xam na lan mooy waxtu wi yonent di wax ak sahaaba yi ci wa ñooñu at yi ñu amoon kenn ci jigéen ñi mu ne muy wax moom yonent bi ba wax leen xeetam at yi ni ñu am nu ñu gàttee ndeysaan ñoom du ñu gudd fan juróom-ñaar fukki at rek juróom-ñetti fukki at nga dee ndaw si mu ne leen man de bu ma fekkee woon jamono boobu dama koy def benn sujjóot seen juróom-ñaar fukki at yooyu benn sujjóot laa koy def rek ba dee ñëw fekk ma foofu ci sujjóot ñooñ dañoo xam importance waxtu ñun xamuñu importance waxtu ixwaani fillah فالمسلم دائما يهتم بواجب الوقت الذي هو فيه جلت دائما ابدا فمو مانا نه بس بمو مانا نك وقت بمو مانا نك دفا ورا خم اي ورو غار يتغو ci kawam ci waxtu wi mu nek waxtu wowu nga xam ne moom mooy dundam mu xam ko ويغتنم الفرصة في كل زمان ليحقق عبوديته لله سبحانه وتعالى التي خلق من أجلها julit fu mu mën a ne dafa war a profité ci waxtu wi muy dund moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam toog ba ci àgg rek mu ne sahaaba yi igtanim xamsan qabla xams profitool ci juróom balaa juróom ñëw sahaaba yi ne tekk mu ne ko xayaatika qabla mawtik sa dund balaa ngay dee yaa ngi dund léegi dee ñëw ndax ku dee mënati na dara kon fii yaa ngi dund góorgóorlul xinaaka qabla faqrik bi nga amee jaamul yàlla balaa ñàkk di ñëw yaa ngi ni am nga sa am am profitool dimbalil jullit yi dafal ci lislaam fi sabilillah léegi nga ñàkk sixatik qabla maradik fi nga wér a jaamul yàlla balaa feebar ñëw jóg leen bu ñu sëlmalee juma ngeen dugg ci hôpitaux yi xool di nga gis koo xam ne mënatul dox julli ji waxuma dox de koo xam ne mënatul taxaw julli ndeysaan benn waay boo xam ne musul dem jàkk dundam yëpp jàkk bokk ci woon mu tëdd benn bis ci hôpital mu dégg ñuy noot naan assalaatu xayrun min annawm mu mébét fi mu tëdd mu mébét ana kan moo koy yóbbu jàkka tey mu dem julli ji fekk c'est trop tard benn waay dafa dugg oto mu accidenté ñu woo ambulance ambulance bi ñëw pour ñu jël ko yóbbu ko hôpital kii dawal ambulance bi bi mu ñëwee sapeur pompier bi mu ñëwee mi ngi yor cigarette waa ji moom mi ngi nàcc waa jaa ngi yor cigarette di tux di xëcc di sànni ki blessé ne ko waaw yow loo fi wut mu ne ko dama ñëw pour sauver la mu ne ko boo ma bëggoon sauver doo xëcc cigarette si di ma ko xër sànnil cigarette si nga fay ko tuub dellu ci yàlla waa ji daal di wax baat yooyu daal di faatu waa ji affaire bi jaaxal ko mu dem wax ko seen imaamu jàkk mu ne ko kooku yàlla moo ko yónni ci yow pour mu tuub loola pour boo dee nga dugg aljanna ñun foofu la ñu toll suñu waxtu yëpp dañ koy fawe ab jullit du fawe waxtoom yonent bi ne fi nga wér a jaamul yàlla balaa ngay feebar firaarika qabla suxalik fi nga amee temps jaamul yàlla balaa ngay occupé ab jullit du fawe dundam nañu xam ne ñu ngi ci Shaabaan mu profito ay waxtoom ngir mu mën a dëggal mën a jëriñoo waxtu wi nga xam ne moo tax yàlla daal di koy bind ixwaani fillah wa inna li shahri saaban inda allahi taala fadila weer wi nu nekk muy weeru saaban ci yàlla subhanahu wa taala weer la wu am ngëneel fees del moom saaban wa qad kaana salafu l umma رضي الله عنهم يستعدون للشعبان كما يستعدون للرمضان صحابة yi ak gaa yi leen toppoon seen génération nit ñu baax ñooñu dañ daan préparer Shaaban comme ni ñuy waajalee weeru koor fi mu nekk ni xoola weeru koor li tax weer wi ñu tuddee ko baraxlu mooy dafa gaaw léegi weeru koor ñëw waaye di nga gis koo xam ne naan weer wi lu ci des ñu ne non des na cinq jours mu ne suutëtëtëtë mais kon kon koor gi ñëw na ni ah ñu ne waaw mu ne non non c'est catastrophe ah mais dina dañuy wax oh là là ndeysaan kooku bu yoroon waxtu wi wallahi am na ci ñoo xam ne jullit yoo xam ne suñu yoroon waxtu wi wallahi dañ koy arriéraat pour bëgguñu koor ñëw xoolal loolu ñii ñoom dañ doon préparé di waaj naan kañ la koor ñii ñoom dañuy préparé di daw naan wéy bu ñu woor duñu benn billahi allazi la ilaha illa huwa duñu benn ñu nag ñoom duñu benn ñee dañoo bëggoon yàlla bëgg lislaam bëgg seen diine ñun mu ngi nii jaamu yàlla bi sax dañ lay xëcc di la forcer pour nga def ko usama ibnu zayd radiyallahu anhu wa ardaahu dafa laaj yonent bi aw laaj ci weer wii di shaaban mu ne lima araka tasuumu shahran min assuhur ma tasuumu min asaaban yow yonent man de dafa am lu ma seetlu man usaama yonent bi ne ko usaama lool lan la mu ne ko dama laa gis da ngay woor ci shaaban lu bare bari comme ni ngay woor a weeru koor aw lu war a loolu ar rasul sallallahu alayhi wa sallam xoolal li mu ko wax mu ne zalika shahrun yagfulu nnaasu anhu bayna rajab wa ramadan weer woowu muy shaaban te mooy baraxlu nit ñi dañ koy sàgganee nit ñi caaxaanukaay lañ koy def te dëgg la wallahi yonent ku gëmul na yonent bi yàllaa ko yónni rek alku nga yonent ay waxam dafa am mujiza ay kéemtaan yonent ne rajab saaban nit ñi dañ koy caaxaane xoolal da ngay gis ab julit bu ne buñ ne tey mooy dernier samedi ci saaban ci weeru baraxlu tey mooy dernier samedi luy xew da ngay gis benn waaye bu ne tey mooy sama dernier fecc tey moom da maa leen di pee yéen ñëpp sàngara ngeen naan tey maa leen di pee reer tey kaay leen ngeen defi lu bon parce que soo deful lu bon tey rek mooy samedi bii di ñëw koor la koor la dañuy woor de bu yeboo nga profito inna lillahi wa inna ilayhi rajiun foofu loolu lu yonent bi wax mooy dëgg weer wi dañ ciy caaxaan da ngay gis dernière soirée dernière show dernière lamb dernière dernière ci yu mujj dimanche yu mujj ci saabaan samedi yu mujj guddi àjjuma yu mujj nga gis ay jullit di def seen dernière dernière mooy yàlla ci weer wi kon yonent wax na dëgg weer wi nit ñi dañ koy caaxaane muy shaaban mu ne wa huwa sahrun turfau fihi al a'mal ila rabbil alamin weer la woo xam ne ci la ñuy dajale jaami yàlla yi seen jëf ba mu mat weer ñu yóbbu ko ci allahu subhanahu wa taala comme altine ni ñuy yóbbee jëf yi ci kanamu yàlla ak alxamis bu dee bis yi alxamis la ñuy dajale yóbbu ci yàlla bu dee weeri saabaan la moo tax yonent ñu laaj ko lu tax ngay woor altine mu ne ci laa juddu lu tax ngay woor alxamis mu ne ci la ñuy dajale jëf yi jaam ñi di ko yóbbu ci yàlla ma bëgg bis boobu sama jëf bu nekkee ci kanamu yàlla yàlla di xool sama jëf mu xool ma fekk dama woor mu yërëm ma ñu nag yonent bi kan moo gën a aajowoo yërmande mbokk yi ñu nag yonent bi kan moo gën a aajowoo yërmande yàlla yonent bi bu ko neexoon mu bàyyi julli bu ko neexoon mu bàyyi woor bu ko neexoon mu toog ñu daajal ko piliyaanu or gaa yi di ko bësal ay tànkam alxuraan moo ko wax inna fatahna lak fatahan mubina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma taaxar yàlla nee na ko dinaa la ubbil màkk après dama lay jéggal sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj ku ñu baal bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj loo war a defati bu doon fii kenn ci ñun lañ ko wax xoola fii ñiñ ko waxul rek ni ñu mel te kenn waxu leen ko ah mais xoola nun mel démb rek ci benn ngénte laa yendu di xuloo ba sa ba ba ngoon jot benn waaye mu ne sama maam nee na sunu dëkk bii ba 45 kilomètres ku fi nekk sama taalibe boo dee dugg àjjana sama maam nee na dëkk bii ba 45 kilomètres ku fi nekk taalibeem bu dee dugg àjjana maamam mooy kan maamam moom moom aljanna ma ne ko sama maam moomul aljanna aljanna yàllaa ko moom yonent bi sax mënu ko woon dugal nit yonent mënul woon dugal nit aljanna ma ne ko yow sa maam moo gën a fort nuux nuux mënul dugal doomam ak jabaram aljanna sa maam moo gën a fort ibrahim te ibrahima xaritu yàlla la yàlla nee na wattaxaza allahu ibrahima xalila sa maam moo gën a fort isa moo gën a fort muhammad ah yow sa maam kon ngand la xoola caaxaan yooyu xanaa sax boobu bu dee da nga doon jaamu yàlla sax waaye déedéet nekkal taalibe bi rek 45 kilomètres dëkk bi ak li ko wër ku fi dee dugg àjjana allahu akbar Sénégal dafa neex yonente alayhi salaatu wasalaam nee na fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim li tax may woor Shaaban comme ci la yàlla di dajale jëf yi ñu ko koy won ci kanamam moom yàlla ma bëgg weer wi bis bu yàlla di xool sama jëf fekk maa ngi woor ci weer wi yàlla baal ma xool yonent ni mu bëgg yërmande yàlla ixwatal iman weer wi dafa am ay jàngit yuñ ci war a jàng bu ci njëkk mooy saaban bidayatu aamul hijri jadid turfau fihi al amal assana ila allah taala ñun ñëpp dañoo war a ànd xam ne weer yi ñu ñu indil ay janvier ak février ak mars avril jëm alaxira du sunuy weer gis nga li tax jullit yi tey alku mooy calendrier musulman bi jullit yi sax xamuñu ko weer wi ñu nekk mooy weer wi njëkk ci at mi atum jullit waaye ñun dul ko xam sunu ñàkk koo xam moo moo ñu jural ba ñuy warante ci ay weer weer yu feeñ na weer yu feeñul parce que intéressé wuñu gis nga li ñu intéressé kenn du ci xuloo mos ngeen dégg ñu ne 24 suba la ñeneen ñi ne déedéet suba la 24 ñuy xëccoo ci 24 mos ngeen koo dégg kan moo mës a gis fi 31 décembre ñu koy xëccoo loolu loolu moo ñu ñor ak yeneen ak yeneen nag yi ci bokk yoo xam ne ci ci islam lañ ko askanalee te bokku ci yooyu kenn du ci xuloo parce que yooyu ñu ñor mais yi ñu ñorul muy lii ay shaaban ramadan ay tabaski yooyu dañ ciy xuloo parce que yooyu intéressé wuñu parce que yooyu duñ ci ànd duñ ci nekk benn parce que ñoruñu ñii dañ koy yittewoo ñee duñ ko yittewoo ñii faale ko ñii duñ ko faale bu ñee nii feeñ na ñii ne feeñul bu la ñu sonal ku nekk di xaar sa weer mu fay sa buntu kër nee na weer wi mooy première weer ci calendrier islam ci la yàlla di yëkkati jëfi jaam ñi ci at bi bu dee ci bisi bisu alxamis la bu dee ci at bi weeru saaban la ñaareel bi faqad kaana aksaru siyaami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min annaafila fi shaaban yonente alayhi salaatu wasalaam ci weer wii li mu ci daa woor moo ëpp li mu ci daan lekk naafilaam yépp ci weer wi la ko daan ëppal lu mu koy def xoolal ñun da ngay dégg jullit bu ne man du ma bëre mbapat da ngaa woor du ma woor ke yow doo nga woor ah weer wi de mooy shaaban ah bi yéen wax dëgg yàlla da ngeen ëppal nag waaw da ngeen ëppal waaw woor kay koor weer koor rek doy na ci nga gis waa ji commencé laa xulli bët ndeysaan allahu akbar te pourtant boo ne woon benn waay rek ci dëkk bi rek benn waay moo ko doon def rek nga dégg mu ne eskay eskay waaw yonent lu mu doon def nag lan moo ëpp barke loolu moo tax sunu xutba ya passé ñu ngi doon wax naka la ñuy def ba ñu sunu dund amaat barke sunu kër yi amaat barke du mun a am barke c'est parce que lu yonent def doyu la nga bëgg a jël lu keneen def teg ci kaw yonent bi wallahi du am barke wallahi du am barke ak ku mu mën a doon soo bàyyee yonent bi lu mu doon def bu yeboo nga fanaane julli ba bët set du am barke parce que yonent bi lim defoon moom la yàlla def barke leneen lu yonent bi deful yonent bi nee na man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafur rahim الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان من الدروس المستفادة في هذه السهر بوكنا تي لسون يني جلي تي ويروي محاسبة النفس على تقصيرها في العام المنصرم والعزم على الجد في العام المقبل bokk na ci li ñuy jëlee ci weer wi ci ay njëriñ mooy àtte sa bopp rek la sa bopp xool yow ñaata at nga am at yi nga am yow say tiyaaba ak say bàkkaar lu ci ëpp mbokk yi commerçant yi sax bu ñu jaayee ba at bi jeex wala ba weer wi jeex dañuy tëj bitig bi xool càmbar société bi sax bu ñu liggéeyee ba dañuy tëju xool mastamaag nag ab jullit waaw man de léegi man maa ngi dem li ma paase ak li nekk sama kanam lan moo gën a baax sama bisu tey sama semaine bi sama weer wi paase ab jullit noonu lay def muhasabatu nafs omar ibnul xataab nee na xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu réglé leen seen bopp bala ñu leen réglé peese leen seen jëf yi bala ñu leen koy peeseel xasanul basri mu ne al wal kayisu man daana nafsahu wa amila lima baada al mawt ku muus mooy ku réglé boppam toog sa ruq xool yow li nga passé fi nga toll loo ci def lan la nga préparé lu nekk ci kanamu dee nga préparé li nekk sa kanam parce que dee mu ngi ñëw mbokk yi ñeenteel mooy fadlu leylatu nisfi sa min asabaan weer wi bu ñu demee ba ci digg ba guddig nisfu saabaan abi musa al asari moo ñuy nettali nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na weer wi bu ñu demee ba mu nekk fukki fan ak juróom ci digg bi yàlla subhanahu wa taala la yatliu fi leylati nisfi min asabaan fa yaxfiru li jamii xalqihi illa li mushrikin aw musaahin saxahu al albani yonent bi nee na buñ demee ba ci digg saabaan yàlla subhaanahu wa taala day sëpp jaamam yi ci guddi gi mu jéggal ñépp bam des ñaari nit kuy bokkaale yàlla ak ku xuloo ak mbokkam jullitam yàlla du baal ñaar ñooñu ñu ne waaw lan moo tax yàlla du baal kuy bokkaale te mu baal ñépp ñu ne waa ji bokkaale inna al mushrik qataa sila baynahu wa bayna allah bokkaale kat bi lu tax yàlla du ko baal dafa jël jaasi wala mu jël paaka wala mu jël ciseau mu dagg digganteem ak boroomam ku dagg sa digganteeg sa boroom loo des digganteem ak yàlla amatul cordon buum gi la dagg moo tax yàlla du ko baal ñu ne waaw yàlla lu tax doo baal ñaar ñu meroo mu ne ndax ki mere mbokk jullitam dafa dagg buum gi dox digganteem ak jullit yi yàlla du ko baal kon mbokk yi ñaar ñooñu yàlla dina baal ñépp ci guddi nisfu saabaan ba mu des ñaari ñooñu kuy bokkaale yàlla ak ku xuloo ak sa mbokkum jullit lan mooy bokkaale mururun sari ala baadi mazahiri shirk ñu romb romb bu gaaw ci lan mooy bokkaale bokkaale mooy ñaan bàmmeel nga fekk ku dee nga dem ba ci bàmmeelam nga taxaw di ko ñaan bokkaale mooy lan mooy nga dem ci njabarkat yi wala nga dem ci gisaanekat yi ñu lay seetal wala ñu lay wax bokkaale mooy lan mooy nga takk ay gàllaaj ay xaaw ay petaaw ay lam wallahi wallahi wallahi tey la bisu àjjuma su police taxawoon fii léegi ci tali bi bu ñu sëlmalee mu ne ku takk lam dama lay yóbbu police oto bi dina fees ku takk lam police nga jëm oto bi dina fees ak bëri ñu julli si jumaa ñu takk lam lu ngeen koy doyee lan ngeen di doyee lam lu ngeen di doyee galaaj lu ngeen di doyee pitaaw lu ngeen di doyee xaaw ayna allah ana yàlla weñ lum la mënal béjjën bi lum la mënal lan la la petaaw bi mënal lan la la gàllaaj yi mënal ana yàlla ku yàlla doyul dara dootu la doy jullit doy na ko rek hasbunallah wa ni'mal wakil loolu doy na la doy na la couverture guddi ak bëccëg yàlla war na laa doy allahu subhanahu wa taala ixwani fillah leçon yu ñuy jële ci saabaan juróom-ñaareel mooy atadaabur wa taqaatu sababun li manci nuzuli rahma walmaghfira wa tawaasul wa taaluf sababun li nuzuliha nañu yëg ne doggoo taqalikoo juuyoo wanante ginnaaw day tax yàlla téye yërmandeem bépp place bépp mbooloo bépp nit fu ñu mën a nekk ñu wanante ginnaaw ñu xuloo ñu meroo place boobu yërmande yàlla dootu fa wàcc même bu doon biir jàkk yërmande yàlla dootu fa wàcc jokkoo yërëmante ànd mooy tax allahu subhanahu wa taala wàcc yërmandeem yadullahi ma aljamaa loxo yàlla subhanahu wa taala kattanam dooleem mu ngi tegu ci mbooloo mi su mbooloo mi tàqalikoo rek yàlla subhanahu wa taala daal di téye yërmandeem at tahzir min al hiqdi wal xasadi juróom-ñetteel ci lu ñuy jële ci saabaan mooy at tahzir min al xaqdi wal xasad sunu diine ji daf ñuy tere iñaan daf ñuy tere mbon min azami masaanih al baraatu min al muminin wa muzaharatu alkafirina alayhim li gën a yées tey ci jullit lu muy def yàlla di denc ci moom mooy bàyyi jullit ñi jàpp ci yéeféer yi nga gis koo xam ne li muy tiitaroo mooy ay xaritu yéeféer mu bàyyi jullit yi koo xam ne bu gisee yéeféer yi kanamam leer su gisee jullit yi kanam gi lëndëm bu gisee yéeféer yi kontaan bu leen di déglu day kontaan su dajeeg ñoom day kontaan su gisee jullit yi kanamam mel ne asamaan bu lëndëm looloo gën a bon tey moo gën a yées te looloo bëri ci ñun tey yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu bàyyi ko allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibaayi wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya haadi ihdina sirata almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله